nuyu naa la. yow maa lay fay. ci loo maa ngi lay sant yàlla baax. ah daa mel ni man kay nga de. non man nii laa mos a mel. man nii laa mos a mel man moom chaque jour nii mel. booy parcelle nga. waaw booy parcelle laa dama ci service laa xam. sol lu ba ni waxtaan ci lu baax. moo daal moo daal nekk du ah, ku bëgg a daf sa bopp daf daf ko demee man moom du ma daf moom. <laughs> mais ci loone sant yàlla baax. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. gëj na laa gis loone waaw maa ngi sama bopp ren daa am lu ma njànkan quoi. ci ay match yu ma nekkoon mais incha allah rabbi jàll na quoi. ah comme que a na léegi yu toll. waaw maa ngi xaar na quoi mais man Sa Thiès laa bëgg a Sa Thiès mi daan démb. waaw mi daan bee démb maa ngi koy féliciter di encourager Moussa Ndoye quoi di wax làmb noonu la man ma gis ne ay action yu bëri yu gars yi dem su ma fekkee incha allah rabbi ma daan ñibbi. da nga a wax ne démb li Moussa Ndoye am boo amoon ci Sa Thiès kenn wax su ma amuloo sax ma ko amee mën Sa am na doole mën na bëre ñeme na du daw. da ngay xeex te kooku mu gën a yomb a bëreel mbër bi gën a naqari bëri mooy mbër buy moytu. non xeex moom du xeex moom di dara xeex moom ay lijjanti la rek. mais mais góor fi nga teg sa loxo diis na trop. ah fi nga teg sa loxo dafa diis. waaw mais lamb ji su ma mënul am lu diis dama war a bokk li ma def ci lamb ñi ma daan daan naa ñu diisee comme ça gerte mais lamb nag xam nga day toll ay guddi yoo xam te ne bii day xaw a taxaw sa côté mais man saa gis combat yow yow yow ak yàppoon na gën naa gën naa neex lool. non man soq du ma wax sax ci waxam ndax li ma wax ci waxam man du ma wax sax ay moom daf na wala daf na laa na man ñi ma bëreel moom bëreewul ak ñoom moom moo ma gën a nekk moo tax quoi du ma wax ci waxam. moo la gën a. nekk champion moo tax du ma wax ci waxam. Eh, soq kay gën laa nekk champion. <laughs> non boo déggee interview bi moom gën a nekk champion waaw. la wax. non yooyu du ma ci dugg man dama am jotu soq man dama ne saa kees laa bëgg a man aw ma jotu soq saa kees laa bëgg dama gis ne sa combat ay Moussa Ndoye ñoom Alioune Seye de bëgg mu bëri ñu Moussa Sa Thiès daa bëgg a bëreel dama yow mu bëree doole xale laa njool la njool laa ni ñu bëree noonu ma ko jox. mais góor lan la lan la. lii lii problème bi mooy dama bëgg a te war naa bëri ak moom nañu ñu bëree waxuma ay sox ay Alioune Seye de ay Moussa Ndoye man dama bëgg a bëri ak ma ko jox ma bëree moom suñ ma ko lii lii moom dama waaw li nga wax te yu bëri mën naa ko ci moom billaay walaay taal du ay waxandoo. defoo yi gars yi di wax doo nga koo gis. dama ko gis na bëri am na doole saa kees di ko visiter di ko encouragé mais buñ ma ko joxee ma ma jumloo ko ci yu bëri yu muy waaw. baax na kontaan naa ok merci beaucoup.